jëyee xëyati amati fële ci zone franche industrielle bu mbaaw ak lakk lañu fa nemmeeku commencé ci ñaari waxtu ci guddi maanaam deux heures du matin benn tey lakk gi tàmbale ci dépôt bi nga xamante ni moo nekk ci usine mèche Linda dal di law ba laal beneen usine mèche bi taqaloog moom di Nina ñi ñu fekk ci bërëb bi xamaguñu lan mooy origine lakk gi maanaam fan la jógee waa jot nañ ñu wax ñoom li nga xamante ni moom la ñu xam ci lakk gi ñu déglu leen ci mbir yi. deux heures du ci la commencé parce que nee nañu comme produit di lakk ni euh, mënul gaaw a fay quoi waa waa safoor yëpp daj nañ fi mais pour ñu mu gaaw a fay nii du gaaw quoi. waaw ndax saxaar si. saxaar si waaw saxaar si. bëgg nañoo moom. Eh, waaw euh, mën na leen waaw waaw bakkanu nit lakk bi moom man xaw ci dara comme comme dama kaa fekkee. Mm-hmm. Euh, maa ngi woon sama kër bi ay 7 heures du matin laa yegg si fii bon mu xam ne lii moo ko lakk quoi. waaw loolu na demee. waaw naxar at jaaxle parce que société moom boo fay liggéey muy tàkk déjà loolu jaaxle am na parce que tamit ñi si xam ne ñoom ñooy liggéey si usine bi yëpp donc euh, dinañ xaw a am tuuti euh, tristesse buy nekk si ñoom parce que tamit euh, fi ngay daanee sa doole nga ñëw fekk muy demee nii loolu naxar weesul lool dal kër yàgg nga bi mu ngi lakk ndax bi ngay waaw dañ ma téléphone ne ma société bi mu ngi lakk quoi. Mhm. nekk ci liggéey. waaw fekk naa chauffeur nekk si liggéey bi mais parce que bi may ñëw fekk na boobu nee nañ ma usine bi mu ngi tàkk si fajar la commencé woon tàkk boobu ba léegi waaw ah, depuis ay 4 heures dañ ma wax daal d' information yi ma si am. waaw comme kële taxaw na le te mu am mbaxane bu noir bi c'est le chef di personnel konk donc boo leen bëggee gënaan xamaat yeneen kii yoo xam ne critères yoo xam mu ngi si biir société bi moom moo leen gën a mën a expliquer affaire yi daal mais d'après ni ma déggee tàkk-tàkk bi daal ñu ne société bi suñu société bi nekk à côté ñu naan ko Mèche Linda moom moo amoon benn dépôt dépôt bi dendat ñu miiru société Mèche naa après dépôt boobu bi mu tàkkee moom moo taalaale société bi mu dendal quoi muy Mèche Nina bi quoi waa mèche moom xam nga comme li ñu wax rek moom si pétrole la jóge donc comme d'après li ñu wax comme mèche si pétrole la jóge donc xam nga bu tàkkee fayam du yomb sapeur yi nag boo bëggee dégg-dégg def na tous les moyens yi ñu mën yëpp te tey jii ñoom bu luwal ñoom donc kon donc dañuy wax ne kon dina gën a jégg dayoo daal. man maay Adi Ndiaye chef du personnel mèche ni na Euh, ay 5 heures du matin comme ça là mais ça euh, lakk gi commencé na bien avant nag aux environs de 2 heures d'après nos gardiens quoi. suy première xayma lakk gi lakk gi nag du ñun ñun daf ñu daf ñu wàlli si ndax lakk bi benn magasin Sénécor bu nekk suñu ginnaaw moom moo lakk wàll si ñu waaw. ah fi mu ne nii nag teel na pour ñu mën ko xayma li ñu mën a xam daal mooy usine la boo xam ne bii dina employé au moins cinq cent personnes par jour au minimum au maxi huit cent à neuf cent s'il y a deux euh, léegi nag ñooñu ñëpp évacué nañ ban dem amul dégâts humains ni quoi quoi mais les dégâts matériels moom kenn mënagu ko xayma tant que fayaguñu lakk gi ndax biig ba léegi sapeur yaa ngi si te mënaguñu ko fay. waaw ñu ngi si sapeur yi kay bu ñu fi ñëwee ça veut dire parce que la zone France statut spécial la am na une brigade de la gendarmerie et une brigade des sapeurs sur place. donc euh, monsieur le maire euh, sous-préfet euh, ñu gisaguñu leen waaye nag comme toutes le le les la sapeur pompier ak gendarmerie fu ñu nekk. ça veut dire que ne l' état est là la zone France à tous les niveaux y' a une brigade douanière qui est là. donc waaw mën nañ ñëw wax ak yeneen waaw fi mu ne nii à l'état bi ñu nekk nii mën nañ ñëw wax ak yeneen autorité yu dul man te duma ko yëg daal parce que on est là pratiquement éparse xamuñu euh, nan lañuy def daal dañuy toog rek di xool te mënuñu si dara loo mënul dara nag di ko xool ah, loo si mën a def commentaire bu bari noonu quoi à l'heure du billant nag on sora daal après su ngeen jaaraatee dinañ leen mën a wax exactement euh, fan lañ toll. jàmbaari lakk yi bi lakk gi amee ba léegi ñoom ñoo ngi fii di sapeur pompier yi di def seeni manine ngir maîtriser li nga xamante ni moom mooy lakk gi lakkug mèche di. synthétique naqaree fay lool te nag li nga xamante ni mooy saxaar si graw lool ngir gaañ nit ñi looloo tax ba suñu nattangoo journaliste yi sax mënuñoo yegg ba ca biir ngir ñu mën a xam li nga xamante ni moom moo am dëggantaan fii ci lakk gi Sunugal 24 jéem a jël tous les risques ngir yegg ca ponkantal ba ngir joxe information yi gis ngeen fii ñu nekk ci biir usine bi yàqu-yàq yi moom bëri na kenn mënagu ko xayma parce que kat bilan moom teel na pour ñu def ko waaye lu ci mënti am mooy yàqu yi moom bëri na xam naa buñ ko doon xayma ci koppar bu laalulit milliard dina ko xaw a jege ndax fii daanaka lépp a dem non usine bi nii naa lay liggéey foofu moo làkk. lan non non journalier la journalier. waaye tey moom du ma encaissé dara semaine yi yëpp presque ñun day nekkaat euh, kii comment on appelle ça day chômé et on veut pas ça quoi on veut vraiment si le gouvernement peut faire quelque chose pour nous pour qu'on puisse euh, au moins recommencer vite vite le travail parce que s'asseoir comme ça payer location loyer et, et, manger la famille est là c'est dur pour nous ko c'est très dur pour nous. vers euh, huit heures du matin huit heures. lakk yu manqué yeeg man ay six heures du matin. ay six heures du matin laa fi ñoo bëggoon a jàll bon ñoo baare yoon bi quoi ne ne du ngeen jàll bon si laa mujj obligé woo sama beneen gars bi pour mu ñëw yóbbaale ñu wala fu may liggéeyee quoi fële duma jëli coréen yi waaw. lan ngeen xam ne moom moo tax lakk gi am. noonu la kii euh, lakk daal noonu dana ñëw si fajar gi ñu baare ne euh, benn dépôt bu Linda mooy lakk fële bon dépôt boobu moo moo paas nii naa tak-tak bi quoi moo enchaîné. ndax dépôt boobu bi mu commencé lakk gaa ngi woon pour fay ko wala nu mu def ba nga xamante ni noonu la def ba yàgg ci nii na. waaw waaw waaye instant boobu sapeur ñu ngi si woon ñu ngi si woon moom ñoom moom sonn nañ si trop moom wax dëgg yàlla sonn nañ si trop def nañ pompe waaw am na lu ñu si bëri lu ñu si mën a wax sax parce que soo xoolee ñun ñëpp si ay jeunes yoo xamante ne si usine bi lañuy ñuy liggéey yaa ngi comprendre parce que fu mu toll nii soo xoolee si leen yaakaar quoi comprendre nga léegi le matin bu ñu ñëwee xama gis affaire bi xew ni xam nga xam nga bëgg bëgg maanaam ñu bëgg ñu ko won nii quoi xam nga bu ñu sañoon xam nga dara du fi am parce que tamit soo xoolee pendant ay milliers de personnes ñoo fi liggéey ñoo fi liggéey xam nga kon tey jii bu amee rek xama day xaw a doy waar ci ñun xama buñ sañoon nag xama gouvernement bi ñëw def si li mu ci war a def xama parce que boo xoolee xama sénégalais yëpp fi la ñuy liggéeyee waaw sénégalais yëpp fii la ñuy liggéeyee te tamit boo xoolee ñëpp xama am na ñoo xamante ni xama ay embauchement lañ ñi ay contrate contractuel ñu xama ñi ay permanent ñi ay journalier lañ comprendre nga léegi nag ku si nekk dafiy jël sa wërsëg bu naree toog ay trois mois et quelque duñu liggéey après day xaw a day xaw a métti quoi waaw loolu moo tax ñu toog fii di xaar pour xam naka la gars yi di trouver solution waaw loolu moo tax ñu toog journalier nga ci usine bi. waaw ay journalier lañ ci usine bi nag waaw. waaw tey moom du ñu encaissé moom ay magasinier lañ rawatina ñun nga xamante ne ay magasinier lañ sax xam nga xam nga moom si magasin lañ nekk quoi xama damay livraison xama nga ñooy doxal liggéey bi quoi ñun ñooy doxal liggéey bi waaw. lakk gi am depuis deux heures du matin ak léegi. ñi ñu jot a talal suñu micro ñoom di xaw a lu sax ni nga xamante ni moom la autorité locaux yi doxale maanaam ci subaak léegi kenn gisu leen du préfet du sous-préfet du le maire mais nag ñoom ñu yaakaar ni amaana dinañu ñëw mais li ci mënti am mooy gendarmerie sapeur pompier ñoom ñoo ngi fii di def seen kéemtalaay kattan ngir jëye ji ñu gaaw ko maîtriser. dinañu ñëwaat ci beneen vidéo ngir jox leen li nga xamante ni moom moo gën a am ci fii di zone industrielle bu mbaaw nañ leen jox en détail lépp lu fi am mbokk yi abonnez-vous commentez et puis partagez cette vidéo pour que àdduna yëpp gis ko